moom minatul machine yi comme day doog a ñëw dafa fàtte ah au lieu mu dugal jingal mi man lu dugal mais c'est pas grave de toute façon on te le pardonne fii ba say 40 jours di passé loo def ñu bàll mais après les 40 jours. on redevient comme xam nga li ma yor ah, alors dëkkuwaay femme tey euh, euh, tabax yi la ñuy waxtaane ak base yi nga xamante ne am na solo donc depuis semaine dernière ñu commencé ci def ay gëstu d'accord alors tey dañuy terminer li nga xamante ni moom mooy les grandes étapes de la construction d'un bâtiment wala d'une maison alors euh, ñu ànd ceeg koo xamante ni nag expert la ci domaine bi directeur technique de la place benn société alors mu doon waxtaane li nga xamante ni moom mooy construction d'un bâtiment alors construction yi bëri na gros œuvre bi li nga xamante ni moo ko constitué ba finition bi yëpp ay étapes yu am importance ci bâtiment bâtiment la mhm. comme ni ngeen ko waxee on a constaté qu'il y a beaucoup d'effondrement euh, bâtiment yi danga leen di tabax ba pare muy ànd ak humidité te humidité bi baaxul ci xale yi daf leen di euh, jox beaucoup de crises euh, yu demee noonu donc moo tax ñu doon laajte état bi naka la fay demee ak nit ñi naka la ñuy def en sorte que ñu koy respecter jusqu'à la réalisation de la construction léegi ñu daat koy seetaan moom mu faram-fàcce ñu chaque étape li nga xamante ni moom moo ci am importance ak naka lañ koy defee dellusiwaat léegi léegi Ibrahima ñëpp xam nañ ni mooy la chose la plus importante ci construction euh, luy fondation fondation mooy élément bi nga xam ne euh, mooy transmettre euh, charge bâtiment yi ci sol bi bâtiment dafay am poids mooy son poids propre et les et ak poids ak leneen li nekk ci kaw bâtiment bi mooy meuble yi effet vent bi tout ça force yooyu la war a transmettre ci sol bi donc loolu moo tax ñuy wax fondation am na trois types de fondation mooy les fondations superficielles les fondation semi-profondes et les fondations profondes quand di fondation profonde mooy à part de 6 au Sénégal fondation yi gën a am surtout bu dee kër lay tabax ay fondation superficielle la mooy fondation yi nga xam ne le bon sol se trouve à un mètre un mètre cinquante boo xoolee euh, Sénégal euh, bâtiment yi fissuré bâtiment yi daanu bari na loolu bokk cause yooyu fondation yu baaxul bokk na ci après boo defee sa fondation y a tout ce qui est élévation élévation mooy yëkkati kër gi mooy nga def say say poteau def say poutre après nga def sa maçonnerie poteau poutre yooyu aussi du du da ngay ñëw rek ne damay def fii benn poteau de 15 comme comme on la l'habitude de faire au Sénégal non ça aussi c'est des calculs ñoo lay jox euh, ñoo lay jox dimension poteau yi dimension poutre yi calcul yooyu nag c'est un ingénieur en bureau d'étude moo koy def waaw man euh, je peux pas faire ces calculs parce que je suis je suis pas un ingénieur bureau d'étude je suis un travaux da wut un spécialiste mu defal la calcul yooyu mu ne la ah, sa poids bi Euh, pour mu mën pour ñu mën ko transmettre ba ci suuf il faut nga am poutre bi de 30 am un poutre de 15 et mu dem ba ci suuf donc tout ça c' est moo la koy wax boo defee sa élévation après nga def sa plancher plancher bi aussi lu ngay ñëw rek comme Sénégal nga def say ourdi wala nga couler non est spécialiste moo lay wax ourdi de 12 ngay utiliser wala ourdi de wala ourdi de 20 et cetera cetera tout ça spécialiste moo la koy wax moo la koy jox boo couler sa plancher après euh, électricien bi dafay topp coulage plancher bi c'est-à-dire que fourreau yooyu tube orange yooyu ñuy gis électricien bi moom mooy topp mason bi bu électricien bi jàllee après euh, plombier bi day ñëw mu génne tout ce qui évacuation alimentation après loolu boo amee euh, étanché si mu ñëw nga def sa étanchéité sur les zones humides yi nga xam ne day rës dafay am dafay dafay am dafay sol bi dafay recevoir humidité pour isoler entre plancher boobu ak li ci suuf loolu bu amee après euh, le second œuvre muy ñëw second œuvre nag euh, loo bu am importance la parce que c'est ça qui détermine la la qualité du bâtiment mooy le, le rendu à part gros œuvre bu dëgër le rendu mooy second œuvre bi donc euh, xam naa ci prochaine prochaine émission bi dinañ détailler tout ce qui est le seconde lan mooy seconde œuvre Sénégal lu ñuy wax seconde œuvre euh, yan qualité matériaux la war a utiliser pour ñu mën religion yi. Ibrahima Gueye la tudd moom nag xam na xam-xamam màcc na ci lu jëm ci wàllu tabax ak ñoom seen donc baas yooyu nen nañu koy respecté euh, même bu fekkee euh, xamuloo ci dara nga am ay moyens war a tabax na nga jege borom xam-xam yi ça permettra nga bañ a yàq sa xaalis parce que tabax ba pare euh, base ba baaxul nga dem sa kër weng mbaa mu toj wala mu yàqu yooyu am na lu ko gën ah, après ngay am ay te on ne sait jamais waxuma la xaalis boo ñàkk rek mais mën nga toog ba mu mu indil la ay jëye yoo xamante ni dina ah, dina dina ëpp tu perds même des vies quoi dina ëpp sax lu baax a baax li nga xamante ni moom nga ci defoon. Ah. donc euh, le gros œuvre c'est da ngay njëkk def étude sol bi. Mm-hmm. étudier baax pour mën a xam ban type de fondation ngay mën a def ci mm-hmm. affaire parce que bëri na. Mm-hmm. am na semi profonde profonde ak superficielle yëpp ay fondation la après nga def terrassement bi ak viabilisation bi xëccu ndox mi xëccu courant bi euh, bi lépp ñu daal koy tracé ba mu baax. def li nga xamante ni moom mooy choix wu fondation bi. soo paree si loolu nag ñu daal def soubassement suñ paree si lool daal def dallage bi. dale ko couler ko te def li nga xamante ni moom mooy murs yi portes yi fenêtres yi ba ci finition bi finition bi nag day spécial. Mhm. loolu semaine prochaine laa ci bëgg a ñëw. dem wan leen xeetu karo yu baax yi. Mhm. wan leen xeetu fenêtres yu baax yi. Mhm. te léegi ñëpp dañu adopté li nga xamante ni mooy fenêtre aluminium yi. ak yeneen yi te am na yu ci rafet couleur yu design na yoo xamante ni mën nga ko ci def. semaine prochaine je vais parler de ça parce que kër moom loo ci def jar na ko ah yenn saa yi dañoo gis ñuy loué euh, di tabax ay tabax yu bon wala finition yi du baax pensant ou se disant que. damay yëngu quoi voilà alors que voilà tabax moom bu baaxee ci sa euh, gudd fanu kër la. Eh, eh, te achat la boo xamante ni mën na am benn yoon nga koy def ci sa vie donc il faut nga taxaw ci bu baax a mën na yàqu yàqu. mën na yàqu c'est important te dund sax nag. boo ci def jar na ko bii. waaw Bakar noo ko sauvé wee jar na ko. quand même ah, ah. merci Fama loolu dëkkuwaay la donc di ak mercredi bu jot nga waxtaane ko euh, ci euh, jotaay bi li nga xam ni moo di yeewu leen.